xibaar leen di mujj koy commencé ak li nga xam ne wala boog la ne bopp ba ka nga xam ne mooy ah, Marie-Louise Diaw ma nga xam ne jamono ji madame Cissé lay tudd ak soxna Aïda Diallo mi nga xam ne kontaan na lool euh, démb ca 17 avril ba ak soxna si nga xam ne moo nekk 2STV di soxna euh, Astou Dione euh, mi nga xam ne am na kàddu yu mu yëkki dinañ leen ko faram fàcceel ci kanam tuuti ba loolu nga xam ne yéen a ngi koy dégg mu ñetti information yoo xam ne dafa war a leer nañ seen bopp yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak Aladji Malick TV benn information du leen raw lépp leen ngi war a xam la ñu koy doore mooy ki nga xam ne euh, moo nekk Pape Abdou Cissé mi nga xam ne euh, jamono jii doonatul ab célibataire ka nga xam ni ko kooku lay feggool fële nga xam ne mooy Pikine euh, falay daagu mi soxna Marie Louise Diaw ma nga xam ne jamono jii ma ngay daagu ca Pikine di ko ndaan ndaat ah, ca xolub ka nga xam ni mooy pap Abdou Cissé loolu takk nañ ko may ko oto ak lu toll ci ñetti millions yoo xam ne yóbbaale na ko ak ñaari oto yoo xam ne eh, yëkki ne ko muy doon information yoo xam ne yu leer la ñu ngi koy ñaanal reménage di ko ñaanal tamit sëy bi mu doon sëy boo xam ne bu barkeel lay doon mook international sénégalais bi nga xam ni eh, jël na coupe du Afrique bi nga xam ni moom la yëkki dem te coupe du monde ba loolu mu doon mbégte ci Sénégal waaye tamit dina baax lool ci ki nga xam ne mooy eh, Marie Louise Diaw Astou Dione mi nga xam ne moo nekk ci 2STV bi nga xam ne démb bi nga xamee ni émission ba nga xam ne mooy am ca 2STV émission koor gi encore plus émission booba ca la yëkk ay kàddu yoo xam ne daanaka xol bu jeex la jeexale la nga xam ne mooy émission am naqar boo xam ne doon na ko belli belli goo xam ne leer na nañ moom mi nga xam ne fan yi yëpp moom la ni jaaba jonge ci réseaux sociaux lu ne ñu yàq ko ko indi na ci ay kàddu yu bari yoo xam ne tuuma yu mu teggi yoo xam ne métti na ko lool nga xam ne ña ngi ko koy tegtal loola dara amu ci ci buñ sukkandikoo ci moom ak soxna Aïda Diallo mi nga xam ne mooy mu sëñ Saliou mu Cheikh beejo nga xam ne démb euh, euh, kontaan na trop fële nga xam ne euh, moo nekk madinatul salaam fële ca mbuur nga xam ne taalibe yi dañu dajale lu toll ci téeméeri million yoo xam ne dañ ko def ci benn la nga xam ne mooy wëlis yëkki ko ci kanamam mu jàkkaarloog moom xol ba sedd guyi ñu tegal ko ca ñaari camion yoo xam ne yëkki nañ ko muy daagu ci kër Cheikh Béthio ga nga xam ne moom na ca mbuur moomeen ñu koy ñaanal looloo lépp daal di koy jik looloo fi ñëwoon ci information ci Aladji Malick TV